tey nag yàlla dogal nga amoon bis bu rëy bés bu capital boo xamante ni tey euh, un bon nombre de personnes gëmuñu woon ne mën nga relever défi bi waaye avant dara dañ lay dalal nuyu la bàyyi la nga nuyu ñi lay seetaan saafonte ak ses supporters. waaw asalaamaaleykum Boucar maa lay nuyu bu baax di bu baax a baax di sant yàlla ju suwent bi. Mm-hmm. sant suma ay ñaari waajur. Mm-hmm. di nuyu waa kër Cheikh na Cheikh Sadou Abi. Mm-hmm. di nuyu waa kër Cheikh na wul du Maamin gépp gépp gépp di nuyu sama famille muy waa kër maam Cheikh Ndouma Seck di nuyu son fooy papa muy waa Samba yëpp ak waa Maja Kàdd maa ngi leen nuyu ñoom ñëpp di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax. di nuyu kilifa diine kilifa aada yëpp. waa kër maam Borom Touba waa kër maam El Hadj Malick waa kër Abdou Khadir Jilaani suñu mbokk Thierno yi. waa kër Bamba Niass Medina Baye maa ngi leen nuyu bu baax waa Laayeen kilifa diine kilifa aada yëpp maa ngi leen nuyu di leen jox seen wàccuwaay bu baax di sant ñëpp di gërëm ñëpp. ci taxawaay bi ci jàppale bi ci ñaar yi ci ñuy ñëw stade ak ñuy ñëwul stade ak nit fu mu mën a nekk nekk sama mbokk waaye nga sama soppe wala sama xarit jàppale ma defal ma ñaan dooleel ma ba yàlla may ma ndam maa ngi lay sant bu baax a baax di encourager suñu camp adversaire bi ñu doon bëreer muy waa Géejawaay parce que Pikine Géejawaay benn la ñoo bokk ndey ñoo bokk baay donc ñu ngi leen encourager comme ni ma koy waxee di féliciter seen mbër duñ ko encourager dañ koy féliciter Balla suñu grand mu nekk champion boo xam ni champion bu confirmé la def li mu war def ci làmb yëpp ñu ñëpp nga nekk mbër nga ñàkk mbër foo nekk dangay xam ni champion bu mérité lépp la da nga koy nangul mhm. donc ñu ngi koy féliciter di ko ñaanal jàmm moom encadrement am ak njabootam ak ñëpp ñu mu nekkal waaye di kontaan ci jotaay bi tey mhm. waaw di nuyu le premier magistrat la ville de Pikine mhm. monsieur Ablaye Timbo suma papa waaw ah, parce que moom damaa am ñaari cër ci moom moom dafa nekk maire Pikine nekk kilifa Pikine gi yëpp mm-hmm. muy benn cër bi mm-hmm. kon bu nekkee kilifa Pikine daf maa yilif yilif ñu nekk Pikine yëpp mm-hmm. yàlla moo ko def ñu nangul ko ko beneen cër bi mooy dafa nekk sama papa moo ko sama papa ñu fowandoo ba ñu nekk xale ànd def seen enfance yëpp donc loolu mu nekk sama papa jur ma am ci man cër comme bi sama papa am donc ñaari cër yooyu laa am ci moom muy sama lépp nag mu mu wane ko tamit. Mhm. daw ci benn responsabilité vraiment. Mhm. combat bi dafa ma taxaw bu baax jàppale ma. Mhm. parce que jàppale mbër dëgg la bu combat bi jegee baax na mais foo muy méttee mooy combat bi de quatre cinq mois ba six mu war a dem antenne ji mu war a ànd ak mbokkam mu war a dem dugg rek luuma mu war def ay saraxam mu war dem seete ay mbokkam ay sëriñam nga woo ko bu mu ñëw nga yëkkati chèque bu am doole bind ko na ko am demal nga def sa préparation bu mu jeex fii loo soxla woo ma. waaw combat bi combat Pikine la xamal loolu te bul dof xam nga. waaw te loolu noonu. lu yomb daal. waaw waaw waaw Ndongo Lo moo ne bu la nit defaree lu baax bu la ñuy teewee wax ko. waaw dafa ma defal lu baax moo tax il faut wax ko Pikine yëpp xam yëg ko. Pikine yëpp xam ko. ne ko dafa nekk maire boo xamante ni dawul benn responsabilité. te ni ma koy defaree la koy defaree sama mbokku mbër nekk Pikine yëpp. ku ci nekk boo amee combat dangay bind dugal sa subvention ñu teg ko sa loxo. nga waaj ak say mbokk. donc loolu dafa baax ñu leeral ko jeune Pikine yëpp ñu xam ko ne mi ngi ñuy taxawu mi ngi ñuy jàppale te bu ñu ko defalu woon tamit suñu papa la waaye dañuy wax ni defaluñu ko waaw di nuyu sama papa Lamine Thiam Togo di ko ziar di ko jox ci wàccuwaayam bu baax comme ni mu ko waxee sama papa la sama mbokk la bu fi teewee teewal na fi géwal yi teewal na fi sama nijaay teewal na fi sama nijaay Alaaji Mansour Mbaye teewal na fi sama mbokk géwal yëpp mhm. waaw parce que man doomu géwal laa ci yaay mhm. waaw donc kenn mun ma génn ci ñoom ñu am cër ci bu mag su may bëri ñoom ñëpp ñu am pression. Mm-hmm. maa ngi leen nuyu ñoom ñëpp di nuyu sama ménager sama père Bourkhane. Mm-hmm. comme ni mu ko waxee sama papa la ñu ànd quatre-vingt mille ba léegi. mooy jàppale xam nga. Mm-hmm. di ci sonn bu baax parfois dañuy nekk di di ànd ak man fu nekk. ay mag lañu seen sant mayu leen ko sax waaye xam na ni kii suñu doom la. donc cër bi ma war a jox si ñoom rek laa leen jox ñoom ñu delloo ma ko bu baax baax. waaw sama papa moom du ma ko nuyu moom mooy sama lépp xam nga. Mm-hmm. mooy kanam mooy ginnaaw mooy gauche mooy droite mooy kaw mooy suuf xam nga. Mm-hmm. moo géré lépp comme bu ñu bu ñu juddoon fekk suñu papa nekk ay dimbalu mat. Mm-hmm. wala ñu nekk ministre wala kon dañuy dem dañuy dem topp kay yi quoi. waaw dañoo ñëw fekk ngemb ci kër gi. donc ngemb boobu moo ko indi. donc loolu deret la quoi. waaw loolu kon incha allah moom ku ñu ko jox. kon kooku dañ ko war a fonk. parce que moo waral ba xam moo wala lépp ñëw si ñun quoi comme mooy suñu papa quoi mm-hmm. moo ñu jàppale ba ñu yegg fii mu dégg ci mo ci carrière bi lu ne mu neex mu metti mm-hmm. Mm-hmm. waaye dawul benn yoon waaye gaynde la mi ngi taxaw assumé lépp xam nga loolu ñu ngi ko koy ñaanal di ñaan lépp lu ñu am ci làmb yàlla na ko fekkee waaw bu bu mu ko nar fekkee yàlla buñ ko am na fekkee lépp ñu defal ko lépp ci làmb ba mu kontaan ci làmb ba mu kontaan suñu carrière incha allah soo papa Paala Diop maa ngi koy nuyu waaw ak sama papa Baba Diallo ñii ñoo ma dalal ba waaw man sama papa moom moo ma yor moo ma nekk xale dugal ma box ak lépp. Mhm. mais ba ma commencé dal baa bëre. Mhm. dañ may indi Pikine mbooloo. sama papa Baba Diallo mi nekk entraîneur sama papa Paala nekk fa sama papa Papa Diop ba son mhm. maa ngi koy ñaanal su moom dafa ko tan nekk fa sama papa Mansour Diop nekk fa. ma ñëw jaar dalal baa foofu. fekk fa ñoom Cek ñoom Boy Sey ñoom Malal ñoom Tonnerre ñoo waa Seeraasi waa Sogaasi fekk fa séeréer yi ñëw di jàng bëre foofu seen biir ñoom commando sama mag ji ñëw na ci combat bi ma fekk leen fa ci laa jàngee bëre donc waaw ak Eumeu ci ñooñu laa jàngee bëre donc nag bëre dama ko tarbi bu baax a baax su ma ñëwoon yor sama saak jóge école damay ñëw ñun ma looy def ni man la damay ñëw seeraan nii ñun ma si meew ma suuf jël sama saak bi sànni ko fële na ma jugal waaw ma biir ñuy di dóor ci suuf di fëkk di dóor laa jàngee bëre mm-hmm. moo tax maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di nuyu deux cent pour cent Pikine bi mm-hmm. donc sama papa Baaba Diallo ak sama papa Paala bu ñu teewee. Mhm. ñoom dañoo teewal ñëpp ñi ñëwul. muy suñu deux cent pour cent Pikine bi. Mhm. loolu dañ ko samp mu dëgg mu nekk ci xol yi. Mhm. te loolu mooy tax chaque jour. donc ñii bu ñu teewal na ñëpp nuyoo bi maa ngi koy teg seen loxo ñu tas ko deux cent pour cent Pikine yi. muy entraîneur yi muy mag yi ak mbër yi. di leen sant bu baax di wax ne Pikine gis naa nu ma taxawoo nu ñu ma jàppale parce que benn lam du yëngu. waaw comme ni ma benn benn bant bant dafay neex a damm daal mais bu ñu àndee doole du neex a damm. te xam nga suñu dimanche passé ñu ñëpp ànd nañ doole ñëw taxaw ma yàlla may ma ndam bu baax donc ndam li nag comme lu ñu wax léegi rek su ma sawee damay dëgg buntu kër Pikine yëpp ku ne ma indi la drapeau bi ñëw ba si yow jox la loxo ne sant naa la gërëm naa la mhm. waaye ko mënuma loolu ba ñu toogee xalaat dañ ne léegi li ñuy def mooy li nga xam ne moo symbolique muy premier magistrat de la ville mu yërif ñëpp mhm. kooku boo yëkkatee drap bu symbolique teg ko ci loxoom mhm. moom da koy mën a téye pour Pikinois yëpp te loolu dafa rafet parce que keroog stade sama signature contre sama open press dafa ñëw mm. jël drapeau jox ma dama drapeau Pikine a ngi nii mm. demal nga dal nga teewal Pikine nga def jom ak fula ak fay fayda donc loolu noonu Pikine waa yëpp ñu mënoon nañ ma jox mais si lañ ko teg mu jox ma ko mm. donc man su may delloo li nga xam ne ndam li ma jëli si loxoom laa koy mu delloo ko gaa yëpp donc man na sëg donc bu ko yoree rek mi ngi mel ni autorité Pikine yëpp yor nañ ko muy Isaaxa suñu grand suñu lépp jàppale ma waaw muy muy Pape Sagna Mbaye suma papa suma lépp ja muy Thierno Ndomba suma papa suma lépp jàppale ma muy du jara jàppale ma teew sonn yaa ngi dégg muy Modou Gueye président AS Pikine muy autorité Pikine yëpp waaw ñëpp maire ginnaaw laay ab Ablaye Diop Issaaka Diop mention spéciale ñooñu boo jëlee drapeau bi jox ko seen kilifa laa mën a wax sax donc day mel ni jox ngeen ko ñoom ñëpp donc loolu moo tax ñu def geste bu symbolique bi mais sunu papa Ablaye Timbo di la wax ni kontaan nañ bu baax kontaan nañ ci taxawaay bi. Mm-hmm. kontaan nañ ci ni nga dawlee benn responsabilité ci doomu Pikine yi. Mm-hmm. jàppale ma bu baax moom xam na ma sax man damay ñëw parfois sax dama koy poñe. dox ci garde bi xam nga. Ah. mooy loolu mais. Ah. dara ma amul problème. waaw xam na ne man fisam laa xam nga. Mm-hmm. parfois affaire day metti mooy ñëw kër ga xam nga jugee entraînement ak sama suuf ñëw taxaw. fekk muy reer maay lekk li bi yëpp. su waxee wala ko balaa waaw <laughs> këram rek laa lekkee. su ma ñëwee toog su waxee ma ne ko du ma buuse mais yi yalootuñ dërëm jox ñu ñu dem laala <laughs> mu ne ma amul fenn fii affaire yooyu parfois day woo pee dama booy bu ñëw damay créer <laughs> da woote rek affaire yooyu waa lool waaw loolu cër boobu su ma ko amee moom moo ko may tamit waaw xam na ni man doom laa xam nga te doom ak baay noonu rek moo nekk seen diggante quoi doom bi jox ko cër jox ko li mu moom baay bi delloo la ko quoi te lool wane na ko suma diggante quoi maa ngi sant nag ñëpp di gërëm ñëpp képp ku may jàppale ak ku may ñaanal foo mënti nekk mm-hmm. maa ngi lay sant bu baax di la gërëm bu baax a baax mm-hmm. di wax ni tak suma papa Abdoulaye Timbo mu gën a bàyyi xel mm-hmm. Pikinois yi mu gën a bàyyi xel ñu nekk ci làmb jeunesse bi gën leen jàppale rek waaw projet yu mu mën a teg rek pour jeunesse bi wala projet teg rek pour Pikinois yi comme ni mu koy defee mu gën ci teg loxo parce que gars yi moom ko li ñuy wax mbër bu jóg rek ngay gis ñu topp ci ginnaaw day bari comme suñu papa Bourkhane ni mu ko waxee ku nekk yaakaar ci yow dëgg li ngay feeku ci làmb sax gis nga nu mu méttee mm-hmm. fere yi sarax yëpp ñëw mm-hmm. doo mën a jox ñëpp lu ñu am mm-hmm. waa te gaa yi sonn ci yow comme ni ñu koy waxee ñu nekk seen ginnaaw ak ñu nekk seen mbokk naan yaa ngi sonn ci diw lan nga am ak lan la jox ko loolu yëpp day métti day nekk suñu bopp waaye bu ñu amee ay autorités yu nekk suñu kanam bu ñëwee benn projet teg ko rek wala ñu ne dañoo bëgg ngeen def lii wala ñu am ay travaux yoo xam ne dañ ko am mm-hmm. ñu jël la maximum de personnes ci booy mm-hmm. dugal leen ci ñu mën a bi côté lii côté lii yëpp ñu mën ci teg loxo rek mm-hmm. pour Pikinois yëpp gis seen bopp muy man comme Boy Niang sama camp ak camp yeneen mbër nekk yëpp parce que Pikine du man kese quoi dama am ay champion yu ma ko bokkal ñoom tamit ñu nekk seen waar di ko bay nekk ay champion yu confirmé jëm ci ay combat ñu leen ñaanal ndam muy suñu frère yëpp yëpp yëpp donc maa ak ñoom ñoo bokk Pikine quoi ñu ngi sant ñëpp ñu gërëm ñëpp waaw. booy ñu gis nañ nga ñu gis nga réer daa mel ni préparé woo ko Pikine foo ko préparé. non maa maa ngi woon Pikine dama laaxatu rek. waaw par non maa non maa ngi dama laaxatu rek parce que laaxatu la combat bi laaj. waa boo xamee fi nga jëm. xam Pikine xam Pikine tamit sas bi ñu teg sa kaw. Mm-hmm. waaw bu ko xam boo ñaa xam ne man du fooyee bis daal. waaw damay am wala ma ñàkk rek loolu suñu borom ma ko moom waaye bis moom dama koy jox ak moom ma sëkk quoi su ma ñëwee stade rek su ma sumee ko damay def ful ak fayda ak jom lu ma yàlla may ma xam ne loolu la moo tax ma nekk sama ruq nekk suma stade ak sumay papa di waaj waaw loolu rek la wax loolu te ñu gis nga xam ne sa kër papa nga daan ngemboo ba dégg daal yi tey nga am combat Balla Gaye génn fa dem ngemboo ji fan la booy ñan ngemboo dëgg-dëgg sama kër papa laa ngemboo mm. kër papa laa ngemboo parce que sama kër papa moom mooy sama waa dëretu papa mm. sama deretu papa yi nag moom xam nga. ma ngemoo ci kër gi ak ma ngemoo ci ay deretam. si këram laa ngemoo. parce que fu ma ci mënta ngemoo rek moom mooy wax dama ngemoo fii. waaw waaw kon ci moom ci ndigalam laa demee quoi. donc xam nga. donc tamit maa ngi nuyu sama ay mbokk muy waa Sambé. Mm. di wax ne gis naa ñaani ak taxaw yu baax. Mm. ak sama mbokk séeréer yi bu baax a baax. Mm. gis naa dañ ma taxaw bu baax a baax a baax. donc damaa dem ànd ak mbokk rek dem ngemm ji ñëw waa yàlla may ma damay sant yàlla baax. dernière question bi nga daanee Balla Gaye ndax coow li bari na trop ñu naan li ko Boy Niang wax li ko Boy Niang wax bi nga daanee Balla Gaye ba tiim ko lan nga ko wax. waaw <laughs> ah, loolu depuis keroog yaa mooy laaj de wax ma ko dara dama ko dama ko nuyu xam nga Balla suma grand la te làmb rek moo ñu boole. te dafay rafet te dafay mës a rafet. te xam na ni man même sax même sax ku déggul li ma ko wax sax. xam nga ni yar ak teggin rek laa koy wax foofu. du ma ko dépassé mu ko ci kàddu. Mm-hmm. parce que li ñu boole jeexul na yàlla may na ma ndam. donc dama ko wax rek pour mu jóg quoi. dama ko wax pour mu jóg waaw dama ko wax yooyu quoi. waaw noonu la rek. waaw waa ak lu bëri rasul loolu duñ leen fàtte. loolu moom lañ njëkkee ñooñu duñ leen fàtte mu ko ñooñu toog leen leen nuyu. sax ñuy wax ni booy ñaar yi man waa kër Cheikh na sa saat bu suma wasila ñooy suma sëriñ. ñoo defar suma maam Cheikh Ibrahima Niass Seck. waaye nag damay dem ci kilifa diine yëpp. di fa sàkku ñaan. Touba bu jotee kenn du ma fa jiitu yow bu kon xam nga ci dara. Tiwaawan bu jotee kenn du ma fa jiitu. parce que yàlla dafa am ci ñu mu may ñu ay nitu yàlla yu ñu nag ñu du ay taalibe la dañuy dem fu ne sàkku ñaan bokk loolu daañuwul dara waa message bi ngay lancé rek parce que tamit li xëj si nag li duuf si nag lépp xëjul si cin bi de kilifa la dafa toog euh, message bi ngay lancé si euh, supporter parce que gis nañ violence xam nga na nekk verbal sax euh. yoo ko avant combat bi ban xam ne daal làmb sport la rek waaw xam nga làmb moom sport comme ni nga ko waxee hmm. te sport xam nga bu boolee bu boolewul loolu le te ñu ñëpp ñoo bokk ndey bokk baay. Mm-hmm. Balla dafa may may xaalis ma koy may xaalis. Mm-hmm. te dafa ma may chance ci làmb. Mm-hmm. parce que a c'était pas évident. moo mag ci làmb moo ma jiitu ci làmb. li mu def ci làmb defaguma ko maa ngi ñaan yàlla def ko. wala ma def lu ko raw. donc mag diggante mag rek doon bëri. mais làmb nag am na fu muy toll day am làmb yoo xam ne dafa am tension. da am làmb yoo xam ne day am coow day am wax. mais loolu yëpp bu paree dañuy seere la mais ñu kaaf ñu ree ñu bokk ndey bokk baay suñ ko gisoon nii léegi balaa muy ñëw dinañ ñun suñu oto dem jox ko ñaari loxo jox ko cër bi moom parce que loolu moom yàlla moo ko defal quoi comprendre mm-hmm. donc dañuy wax Sénégal rek ak monde làmb mm-hmm. ñu bokk ndey bokk baay ñu gën a soigné làmb tamit mm-hmm. parce que làmb sport bu neex a jaay la waaye comme ni ma benn kilifa waxoon na ma mu ne Boy Niang mu ne mun ma làmb lu des rek mooy dafa amul ku ko jaay waaye sport bu neex a jaay la kon gis nga gis nga UFC mais gis MMA gars yi koy jaay sport gis nga koy jaay waaw incha allah loolu kay avec plaisir. suñu yaay Sadio. waaw avec avec plaisir suñu yaay Sadio yaay ju baax la. waaw ñu ngi koy ñaanal jàmm bu baax a baax. donc kooku moom même bu baax la waxul woon sax. ñun moom ku ñu woo ci seeti yaay Sadio dañ ciy dem bu baax. parce que Balla ba papam Balla ba papam gaañoo. ba papam gaañoo kenn kenn jiituwuñu fa. parce que suñu papa la bu baax a baax.